waaye euh, salaamaaleykum ñu euh, ba tey ñu ngi fii ci li nga xam ne moo ouverture euh, institut Thalès ñu taxawoon ak mon général Sarr muy kenn ci Pape Ousmane Sané général ñu ngi lay nuyu. waaw ah, jërëjëf Assane maa ngi lay fay. tey nag ñu gis la tey li nga xam ni moom mooy ouverture institut bu Pape Ousmane dégg nañ la sànq ci sa wax nga ni goroom nga yow yaa ko may sa doom ñu bëggoon xam maanaam bi nga ñëwee ban yëg-yëg nga am ak. blanga nga am lo xam mon mën nga ko doli ci li nga xam mom la pap Ousmane ubbi pour le développement Sénégal. Euh, jef asan euh, question bi nga ma laaj euh, am importance trop te it man beug na ci tontu aussi tontu bu bu bu jub ndax Ousmane sama sama goro la yalla def na sama dom bu jigen sama ta bu jigen mom la ko may mais li tax ma gëna ñëw surtout moy engagement bi ma gis ci mom parce que xalé la bo xamantene bi euh, man dama remarquer né mom dafa bëgg toujours avancer mais dafa bëgg yóbbaale aussi réewam bëggul a avancer dem mom rek lolu motax toujours aussi euh, ma rafetlu bu baax institut bi nga xamantene bi boko analyser bokk na ci institut yo nga xamantene en tout cas ni ñu ko gisé ñun euh, li institut la bu wara mëna mën Sénégal fu sori ndax aspect yi muy développé di ko jàngale bëgg aussi di ko promouvoir dafa nekk aspect yoo xamante ni dañu am seen importance même ci Sénégal heure bi mu toll nii. parce que comme ni ngeen ko xamee dañu nekk ci environnement boo xamante ne bii insécurité bi ak defkati naka sudul noonu yi ak euh, euh, tout tout ce qu'on appelle euh, les conflits asymétriques dañu bëri ba nga xam ne il faut que nit ñi muy population bi comme ñi nga xam ne ñoo yore kaaraange gi ñu xam loola nu mu demee ak naka lañ koy xeexee te institut Thalès na ci renforcer capacité ci xeex lolu manam euh, njombe yoy nga xam mo ñu wër muy problème terrorisme ak yooyu yëpp mais day aussi défar ay nit ba nga xam dinañ jox ay compétences yo xamante mu nekk administration mu nekk dans le privé dinañ wara mëna euh, euh, en tout cas doxal sen ay mission pour yobu sen sen réew ci kanam lolu moy première raison bi deuxième raison bi aussi man officier de gendarmerie là, donc fépp fu waxé affaire sécurité ak stratégie wala fépp fu waxé résilience dama fa war taxaw jël fa ay renseignements yo xamante yi nako ko mën a jox samay kilifa ba ñom itam ñu mën jappalé ñoña ñooña ca loola ndax ñu gëna dem kanam ñun ñëpp. en tant que officier de la gendarmerie en tant que général mais gis nañu eh, école bi moy institut Alas euh, Talas dafa nekk euh, eh, euh, école bo xamni ni école privée la donc mën nañu wax c'est la première école privée de l'institut Thalas boo xam ni mooy institut bi nii est-ce que gouvernement bi pare na pour jàppale ko ci ci jàppale ko moom Ousmane ak jàppale institut bi ba ñi nga xam ne ñi ciy jàng wala bu ñu diplôme après daañu génn te bu ñu génnee aussi daañu daañu leen mën a euh, dimbali wala daan leen mën a buux aussi ba ñu mën a nekk ci dara yow mi nekk ci état bi est-ce que loolu gouvernement bi taxaw na ci. waaw man lima ma jàpp mooy ne loolu bu ko gouvernement bi yëgee. Euh, ba xam bu euh, les programmes et les modules de formation dinañ ko ci war a ndax l'école bi li muy li muy li ak comme programme dafa beaucoup ci liggéeyu état parce que man ñaari ñaari école la fi xam yo xam ne ñu ngi def li muy def benn bi mooy CHETS euh, nga xam ne militaires yi ñoo ko ñoo koy diriger muy le centre des hautes études de de défense et de sécurité euh, nga xam ne état major le logé wu ak le centre d' enseignement diplomatique stratégique le CDS e nga xam ne professeur Diallo moo ko yore à part ñaari école yooyu gisuma beneen école boo xam ne niveau stratégique bi Ousmane di yëngatu am na fi donc gis naa ne même bu fekkente ne bii sax école privée la hein, euh, société yu mag yi wala bokk administration yu mag yi danañ war a mun a ñoom sélectionner ay ay ay stagiaires indi leen fa pour renforcer seen ay capacité ndax bu ñu dellusee lañ fa jàng ñoom itam ñu mën koo jàngale fa ñuy liggéey waaw. jërëjëf général merci beaucoup merci.